tollook 1853 ci miladi yi waaye juróomu góor ñu gën ko xam ci Mamor ant Sali mbacke waaye juróomu jigéen ñu gën ko xam ci soxna Maryam waaye gën a ci jaaratullaahi ngir mënoon a jaamu yàlla gu mënoon a jaamu yàlla sëriñ bi waxtu wi nga xam ne mat naa dal ñi ko dal jàng alxuraan ñi ngi ko jox baayam bu ndaw ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Ndumbe dëkkoon Jolof ñu ne kooku moo ko daral alxuraan jàngal ko ko mbam mokkal gannaaw bi mokkalee ci la fi kooku bàyyi ko sëriñ Mbàkke Ndumbe moomu gannaaw bi ñu jël ko jox ko nijaayam di sëriñ mbusoobe bokk na kon ci ñi ko jàngal gannaaw bi it bi mu mokkale alxuraan di wéyal am njàngu xam-xam bokk na ñi ko jàngal ku ñuy wax sëriñ sàmba tukulóor ka nekkoon kilifa ci tariixa xaadiriya kooku jàngal na ñu ne sëriñ touba bokk na ci lim ko jàngal téere bu ñu wax ar ci wuy wax ci wàllu fiqhul maliki sëriñ bi nag jamono bi muy jàng ñu mu nekkoon koo xam ne nii dara nekkutoon yitteem lu dul xam-xam rekk joxoon ko lépp ba mujj géeju lool ci xam-xam yu bare bari bokk na ci ñi nga xam ne jàngal nañ ko it ku ñuy wax xaadi ma jaxate kala kooku it am na ay fànni xam-xam yoo xam ne nii jàngal na ko rawatina xam-xam boo ñuy wax ilmul arud